kon nag niñ koy niñ koy sellalee ak niñ koy jàngee loolu luñ luñ luñ war a xam la mooy tax ñu mën cee jariñu mooy tax suñ njariñ ci xasit yi njariñ li muy bari bari di ko di ko sellal di jël luñ attan waa ji daa jékki-jékki rek jóge fële ñëw daan yan leen yan leen ma ndaali ñu ne ko ah ndaali diis na de mu ne yan leen ma rek am murit du tële dara ñu yan ko ko mu ni mu ni may leen ma nooy xam nga loolu mënoon na ko bañ a dal <laughs> waaw kon bu fekkee ñu ngi koy jëfandikoo ni ñu ko war a jëfandikoo rek danañ dem ba àgg ci cadre bi nga xam ni ni si ni ko sëñ Muntaxa waxee ci xasida yi rek lañ mën a yëgi Serigne Touba da dem bay yëg ci sa bopp loo xam ni danga xam ni lii nii xasida yi képp moo la ko mën moo la ko mën a may dangay dem xasida yi day maanaam mën nañ ni mooy jëmmi sëñ bi ndax sëñ Touba nee na képp koo xam ni yaa ngi koy jàng mooy tànk yi nga xam ni képp koo xam ni topp nga leen danañ la indi ba nga agsi ci sama jëmm ji danañ la indi ba nga agsi ci man ndax gis nañ ñu bëree bëri ci magi sëñ ñoo xam ni demoon nañ bay dox ci jaww ji sëñ sëñ sëñ saxin mbàkke sëñ sëñ mag bi da koo jox ak euh, ak kafteer di ko tàngalloo mu daal di jël jaalibatul maraaxib nee nañ upp ko ci kafteer bi bax bi mu agsee sëñ Tuubaa ko def lawuma la lool dama bëgg nga dem tàngalal ma kafteer bi kon ku ne xam na ni euh, yooyu karaama yooyu ak xarbaax yooyu mi ngi ci biir xaside yi ci képp koo xam ne yaa ngi koy sellal te wóor na ni ma sax fii nii ci jotaay bi am na ci ñoo xam ne xaw ma mën nañ ko waaye boo boo weexee am na ñu ko man ndax képp ku ko sellal rek la nga ci daa daj ak liñ ci daan gis da nga ko ci gis ndax yëg-yëg bi moom wóor na ni ma képp ku fi toog di ko sellal yaa ngi koy yëg la nga ci daan yëg yaa koy yëg ndax loolu sëñ tubaa moo ko ci daxañ te sëñ tubaa du fi jóg mu ngi ci biir euh, xaside yi léppam da ko cee def kon nag yàlla na ci yàlla nañu suñ borom defal ak dégg ak topp ba niñ koy jariñoo ñu ñu xam ko te njariñ li saa yuñ ko jàngee sëriñ bi xëccal ñu ko bam bam bam bam jegeñu te benn lor bu mu ñu ci fekk ndax lépp loo xam ni faj euh, euh, aajo juñ am ak ak lu mu rëy rëy ak ju doon rek suñ borom def na ko ci barki démb rek laa koy wax sëñ taali mu mu naan ma ñaanal ma euh, na ngeen ñaan bu baax ndax ki fi nekk njiitu réew mi daa xaw a sonal waa dëkk bi ma ne ko xasida yi ngeen fiy jàng ak yii nii day xaju leen ci moom xaju leen ci moom xaju leen ci moom sëñ Saliou dafa am ku ñëw di ko tàggu di dello mu ne ko sa law day bari na mbaa yi a ngi fay jàng xasida sëñ Tuubaa mbaa yéen a ngi fay jàng xasida sëñ Tuubaa kooku ni ko waaw mu ne ko sa law bari na ay musiba ak i balaa yuy nar a wàcc ci seen kaw xasida yooyu yi ngeen fay jàng day moo tax yàlla rus leen ak ñoom ak ñoom donte xamewuñ ko noonu donte xamewuñ ko noonu sama waajur nettali na ma bi muy nekk njàppandal sëñ bi dafaa ñëw ni ko mbaa yéen a ngi fiy jàng mu ne ko dañuy def léegi-léegi ci nawet bi bu ñuy jàng muy waaj a taw mu ni sa law day bu ngeen demee ba narutu leen fee jàng xasida na ngeen ubbi sama néegu bopp bi ngeen ngeen taxaw kuréel fa ndax xasida ki ñi ñiy jàng yow mi leen wan ginnaaw boo demee ba déggatoo leen nee na saytaane dootul jege jegeeti foofa nee na foofa yow mi nga xam ni yaa ngi diglu njàng mi di dem di dem di dem ba déggatoo njàng mi fa nga taxaw yow te déggatoo leen nee na foofa sax saytaane du fa jege dama jël la nag fa ñuy jàngee waaw ndax ci ci ci zahir boo xoolee euh, yi réew yi nga xam ni ñi ngi xeex di guerre di di di lépp mboolem li yàlla wax ñu ngi koy def ñi ngi julli ñi ngi wor waaye teewul euh, ña ngay xeex ña ngay rayante ña ngay def lu bon lan moo waral ñuy def loola lan moo waral ñuy def loola mboolem lu mboolem lu bon ña ngi koy def waaye dañoo jëngul xasida Sëñ Tuubaa ndax fañ koy jàngi doo dégg guerre am fa doo dégg jafe-jafe am fa kon li Sëñ Tuubaa waxoon ni euh, sama xasida yi kawe na julli guñ nangu ak woor guñ nangu loolu da nga koy danga koy yëg ci loolu ndax euh, fa ñuy fa ñuy jullee ak a woor ña ngi fay mooy yàlla ña ngi fay rey ay jullit te fi ñuy jàng xasida Sëñ Tuubaa kenn defewu fa loola kon mboolem yiw woo xam ni wa kulla xayrin mboolem yiw woo xam ne dafa mës a nekk fu ne rek Sëñ Tuubaa da koo jël def ko ci xasidaam yi bépp wérdu boo xam ne ñi ngi naan la boo ko boo ko defee am wala boo ko defee nangam mi ngi ci xasida gi boo ko ci lambee daj ko xasida gu mën a doon nag xasida yi doomi Sëñ Tuubaa yi am na wax nañ ci yu baree bari Sëñ Saaliw nee na woon jaalibatul maraaxib gépp gone goo xam ne dafa dafa dëng wala dafa nekkul ci yoon na ko nay faral di ko jàng nee na tey séerul ansir euh, ku koy jàng wet goo tifli ci ci ci ci ci ci ci kaw yonent bi lay dal moo xam penku soow saalum wet goo tifli ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam lay dal muqaddamatul am daax nee na xaw ma ëllëg yowmal xiyam wenn bayit buñ ko ci jàngee ku musa ku yoroon drapeau bi da nga ko joxe te xam ne man mii maay maay maay borom muqaddamatul am daax sëñ Abibu dafa am ku ñëw ci moom ne ko dama bëgg nga jox ma xasida goo xam ne dama koy su ko defee ma ciy faj sama yitte àdduna ak àllaaxira mu ne ko loolu ak xasida ëpp na ci ak xasida ëpp na ci daan ne ko wenn bayit sax ëpp na ci daan ne ko xoolal euh, euh, muxaddamaatul am daax bayit wu ci bayit wu ci mujj euh, salaatu minallaahi rabbil arshi abqi salaatuhu bi taslimihi lil mustapha al muxjalal yemmi daan ni ko foofa mboolem lu ñuy jaamoo yàlla ak lu ñuy sàkkoo yàlla Sëñ Tuubaa dajale na ko fa neex tudd na fa yàlla tagg fa yàlla tudd fa yonante bi tagg ci yonante bi ñaanal ko fa ndax minallaahi tudd na fa yàlla rabbil arsi tagg na ko fa booy borom aras ndax booy tagg nit da ko naan yaay borom nangam yaay borom xelkom yaay borom njurul ab xii salaatuhu na ci yonante bi halal Moustapha tudd na ko fa ah bi taslimihi julli na ci moom bi taslimihi lil Moustapha waa lil Moustapha al muxjilal yemmi tagg na ko fa kon nee ko bayit woowu mboolem lu ñuy tagge nit ak dajale na lépp kon moo tax mu ne ko wenn bayit rek doy na ci kon ëpp nanu sax ëpp nanu xasida yi ëpp nanu waaye sëñ Tuubaa mi nga xam ne moo nu ko indi rek moom moom la kenn xamul lu mu doon kon nag nañ gën a góor góor lu baax gën a sant gën a xam ne liñ am kenn amu ko nii ngeen def rek di daje di waxtaane sëñ Tuubaa ak di jàng ay xasidaam ak di jël seen alal ci li ngeen man ngir procès yi nga xam ni moom la xalifa général murid am moom la sëñ Tuubaa am ndax sëñ Tuubaa ay procès la fi bàyyi euh, ak ak ay liggéey projet yi mooy mooy liggéey yi rek jumaa yeeg yooyu li ko taxawal rek mooy nii ngeen def alal yi ngeen di dajale ndax boo amutoon waa fi def nii waa itali waa nangam def nii kon dara du sotti ndax ay ay ay jinne du ñëw di ko liggéey ay malaayika du ñëw di ko liggéey ñun ñii la sëñ Tuubaa defal tawféex ñu ñu war a sottal liggéey bi suñ maam ya fi dañ daan bay di yët di yët xalifa yi sëñ ñuy def ci jumaa ji ñuy def ci proce yi ñuy def ci hôpital yi ñuy def fépp kon nag ñun ñoon seen maam seen maam yooyu dem na ñun ñu leen fa kon ñi ngi ci àll bi liggéey bi daa soppi ko rek kon luñ am ni ko Baye Cheikh Jenn waxee nañ ca jël nañ ca jël liggéeyal sëñ Tuubaa li sëñ Moustapha Sall waxoon ni buñ fa bu des di ko jox waaye nañ jël ca la gën a baax di di di yët sëñ bi ndax bu ëllëgee yowmal xiyaam yonent bi nee na eh, ba sëñ Tuubaa nee na bahaadiyallaahu alkiraamal xurraa wa bi baqaa iyan nabiyya sarra nee na bu ëllëgee mboole mi yonente yi ak saxaaba yi dañuy taxaw di puukariwu ci sama jëmm ji ak sama jumaay ji bu ëllëgee nag puukare boobu képp koo xam ni def nga ci sab dërëm mën ngaa yëkkati sa xam ne ca nga ndax jumaay ji ñi gën a néew doole ñoo ko def jumaay masalikul jinaan ji barki démb du du état du benn projet bu bàyyi ko fenn du du ndimbal ñi gën a néew doole ñoo ko def ñi gën a néew doole ñoo ko def mooy borom téeméeri borom ñaar téeméeri borom ñaar fukki junni yi borom nangam ndax am na ñu yori milliard bu leen buñ mën koo def te defuñu ko waaye yàlla xol ba la leen yàlla joxut ñi yàlla jox xol bi nag ak cant la ndax way néew doole yi foo leen fekk ñooy raw seen morom ndax yonent bi nee na bu ëllëgee ñi way new doole yi dañuy ne ca juróom-ñaareelu étage ak juróom-ñaareelu di séntu woy am doole yi lu ko waral mooy seen xol la yàlla tàggat ndax benn waay bu duggoon fii euh, ñëw ci Saliou sàmm mi ni ko damaa bëgg nga wala mu laaj ma sax damay bu ma xoolee dama naan 10 000 laa yor aw ma weccat waaye moom bu dee aw ñaar fukk la yor attan na ko joxe te yàlla tax loolu loolu lu ko gën a rëy mooy nii ñuy def nii ndax am na ñoo xam ni lii ngeen yor yor nañ téeméeram téeméeri junneem waaye xol bu ko yàlla xol yàlla deful leen tawféex def ko ci yàlla yàlla deful leen taw tawféex def ko ci Sëñ Tuubaa te joxe yàgg naa yóbbu nit foo xam ni euh, jaamu yàlla du fa yóbbu nit maam Cheikh Ibrahima Fall lu mu rawee nit rek ak fu mu àgg ci joxe la la rawee nit Sidna Ousmane am na xare yoo xam ne da moo financé xare ya moo daa joxe gëléem ya moo daa joxe euh, ndox ya moo daa joxe xeej ya moo daa joxe fett ya yonent bi daa mujj ko ginnaaw loo jëfati tey loo jëfati tey neex na yàlla yàlla araamal na la ci sawara jëf ak financé moo ko may ak ñu baree bari ci yoonu murit moo tax xam-xam du tee nit a loru jàng du tee nit a loru julli du tee nit a loru ndigal a gën lépp fabal fabal ndigal te bàyyiku te fam ndigal te bàyyiku ku fam ndigal te bàyyiku ñu may ko may gu ko labal moo tax sëñ Tuubaa daa ni bakkaa ngi ki fóore yi ñëpp ne jàng rek a fi jariñ mu seexal ku jëngul aw xaraf ñu ni moo fi daan ndax dama Euh, benn jotaay boo xam ni maanaam dafa am mbooloo moo xam da leen a gis ñuy jéggi siraat nee na gaawaay ba mel na ni moo raw melax nee na ma laaj ñu ni duñu su bokkuñ ci soxodaa yi bokkuñ ci yonente yi bokkuñ ci mu euh, muxarraboon yi waaye ñu ni mbooloo lañ moo xam ne dañ daan jël seen alal di ko jëf ci yàlla te yàlla rek tax kon mooy foofu laay daanele mooy la sëñ Tuubaa waxoon ci jawfal fara daan ne xam ngeen luy jawfal faraa wajxal masiri yasa jawfal fara lil wara mislal maharin ñun ñii naan aw nag ñii naan mooy njaay àll ñii naan mooy lu ne Sëriñ Tuubaa ni leen jawfal fara aw rab la woo xam ne képp ku ko jam doototi soxlaati ndawal képp ku ànd ak yow dootut soxlaati ndawal ci giir dundam daan ni jawfal fara nag benn bal képp moo ko mën a jam benn bal mooy ëddiyee xam ne fa mu jóge dara nekku fa fa mu fekku fa dara daan ni bal boobu mooy bal bi koy jam ku ne xam na ni lii ngeen di jaayante ak di ko def ci Sëñ Tuubaa maanaam pas-pas la waaye man ngi sax nekku fi loolu mooy taalibe Sëñ Tuubaa yi kon nag yàlla nañu suñu borom sotti xéewal kenn képp ku fi teew rek li li ne soxal yàlla na la ko yàlla defal bu dee looy dàq yàlla na la ko yàlla dàqal bu dee looy xëcc yàlla na la ko yàlla xëccal ci barkeb xasida yi ci barkeb Sëñ Tuubaa ñi ngi jégglu ñëpp ci ci kàddu yi yéene la rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf macha allah.